sénégalais yow jël mel na ni kenn ki dong moom mooy saytu wàllu tension wam ni ki waa kër docteur niñ ko santaane. tàmm naa di xool sama tension ñaar wala ñetti yoon ci weer wi. trois kooku mosuma ko def dëgg yàlla. benn laa ko mos def une fois. lu ni mel dafay wane ni rek ni ñu bëri ci askan wi xamuñu doy waar gi hypertension artérielle doy waar ak loraange yi muy def ci biir réew mi. ah ñàkk xam nga mbir xamuloo ko. mu di feebar bu ñu xaw a xeeb feebar boo xam ne sax day yàq lu bëri laata rek muy fës bile ndongo am na si yenn symptômes yoo xam ne xam na ko si hypertension artérielle ni muy dikkee doomu aadama. Euh, mën na la nga amee ay ay vertiges jékki-jékki la commencé miir voilà parfois nga am les visions un peu floues et tout parfois tu avoir des palpitations en fait. Amar Talgay di frigoriste moom li muy jàmbat yëpp ragal na ni tension la. mais nii nii moo xam ci weer weeru nii nii nii nii maa ngi sant loolu tëdd naa ba guddi ma sentir suma benn côté bi commencé di metti côté bi quoi fii fii di metti ak di metti boo xamante ni yëg moom su naaj bi tàngee nii dama yéen benn côté bi nii dafay metti trop waaye nag taxul mu yàkkamte dem kër docteur xam nga rek situation bi mu demee ak doo am jot bi et puis boo nee à 66 ans da nga bon comme mosuma feebaree yenn feebar yi mun na bañ garaaw quoi Aïssatou Sy moom xam na lan mooy tension ak naka lañ koy maytoo lu bari sax daf ko soppi si dundam. tension xanaa lekka bi dangay seet lekka bi ngay lekka am moytu boobu. jën bi ak lu niin lu niin yëpp ak lekka guddi. bu ñu sukkandikoo si njàngat bi tukkee si ministère bi gàlloo wàllu wérgu yaram nee nañ fii si réewu Sénégal ñi fi amee tension téeméer boo jël toll nañu si ñaar fukk ak juróom-ñeent yu toftal juróom-ñett si lim seeni at dafay tollu si fukk ak juróom-ñett jàpp juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent.